merci beaucoup nous allons aussi euh, si li nga xamante ni moom euh, tribune bëgg nous aussi tamit ñu commenter vous euh, tamit mm-hmm. la une tribune parce que tamit le mu wax am le solo dafa jëm ci li nga xamante ni inondation yi bu ñu régime les may rek ñu aussi la tribune on lit ensemble la une mm-hmm. comme ça après ñu commenter si ensemble alors la tribune alors la tribune ñu ngi xëyee ci Diomaye Sonko face aux dégâts des inondations mais aussi euh, ki nga xamante ne moom moo di euh, mën naa ni jëwriñ bu ñu tabb euh, ci wàllum ndox meek assainissement des Cheikh Tidiane on a vu tey wala démb mu taw mais on a vu ci gox yu déjà inondé na tey euh, ban taxawaay la nga xamante ni nguur gi war nañ ko taxawu askan bi ci lu jëm si wàllum euh, mbënd bi. loolu li ma ci wax damay démarrer juste ci journal bi ko publier. Mm-hmm. déjà sax corrigé nga ko ci sa biir wax ñu ngi ne président Diomaye et Ousmane Sonko face mënoon nañuy def le responsable de la politique de l' assainissement muy Cheikh Tidiane Dièye. il fait partie de son ah parce que tey moom lañ mën a engagé responsabilité bu dee inondation yi mu ngi persister pas ci yii de. je te parle il faut ñu xam compétence aussi. non xam nga man j'ai comme l'impression quand on touche à Ousmane Sonko rek wala Diomaye rek. déedéet non, du loolu de dama bëgg ñu xam Sénégal laa bëgg ñu xam domaine de compétence maanaam di nga gouvernement. Ñepp ma ma bu ba mu ngi doxal tay mënoo ne inondation day am nga bëgg engager responsabilité. manam ku ne dafa am responsabilité boo amee ci réew. donc yow tu es loolu laa bëgg mais bu ñu manipuler et cetera yooyu jarul. non y a pas de manipulation le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Monsieur mhm. Cheikh Tidiane Dièye mhm. de am obligation envers la population mhm. xam nga mooy lan faire tout ba mettre en place des réalisations et des entretiens yoo xam ne dina faciliter collecter eau bi maanaam bu ko ko évacuer ko ba pare traiter ko pour moi mu am fu mën di dem booy xool mesures yi fi jógee il faut comparaison di am parce que dañuy bañ ñu doxee comme ñu fi jógee ñi fi jógee jël nañ fi 700 milliards ne dañ ko def ci problème mu inondation 700 milliards jël nañ ko def mais dañ ko ci def mais pour man se faux parce que tey 700 milliards bu ñu ko defoon ci problème mu inondation mënul bu tawee Dakar muy inondé comme pas possible certes nag gars yi fi ñu dëkkee zone d'eau la maanaam zone la boo xam ne ndox fa lay nekk tey ji kër yu bari suufe nañ augmentation pluie bi bu amee ndox mi force day dugg ci seen kër mais tey ndox moom bu ko état wutaloon yoon maanaam boo xam ne parce que 700 milliards du ay caaxaan. Mhm. nga ay yoon quoi boo xam ne ndox bi mën na fay verser ndox mi du taxaw foofu day dem mais à chaque fois Sénégal dañuy gis autorités yi fi newoon. ci fee yi nga xam ne lan mooy xaar autorité bi fi li ñu koy mhm. xaare mooy mu mettre en place projet yu différent ak yi fi amoon. Mhm. déjà li mu toogee ak léegi yàggul mais mu ngi def ay jéego yu bare bare bare gis nañ ko seeti na fi population jaxaw bi nekk euh, Kër Massar.

di waxaale aussi ci acte de citoyenneté yi nga xam ne patriotes yi ñu ngi koy def parce que tamit non damay wax bu may wax di pense que damay politique alors que politique moi je parle parce que tamit gis nañ fii actuellement autorité yu bari di wàcc ci terrain bi di dem di set setal te auparavant amul bu ñu xoolee ci ginnaaw ministre mosul def lool gis nañ premier ministre Ousmane Sonko muy wàcc ci terrain bi ànd ak ay patriotam comme lu ci mel ni ci Best Dakar cetera Nous def set cette yoo xam remercier Nous mhm. am aussi le ministre de la microfinance et de, l'économie mhm. sociale mhm. moom it muy wàcc euh, Alioune mais nekk ci di def yooyu noonu dafa Sénégal donc une population aussi dañ ci am part de responsabilité inondation parce que l'État, mënul mettre en place des projets yoo xam daf permettre pour lii ngay dund nga jóge yow ngay jël tourner ngay jël ay déchets di ko sànni ci canal yi di fàtt affaire yi. Mhm. des fois nga gis des gens aussi ñu dem canal yi ci boppam ñu jël ay briques di ko ci teg pour ndox mi mën a circuler. Mhm. xam nga loolu tey pour man loo ci mën di gagné pour ñu ŋàññ. Euh, mhm. régime bi nga xam ne moo nekk en place jaru ko. gis nañ gis nañ ko à Touba. régime bi bi passé jëloon na vingt sept milliards def ko fa ne day régler problème mu inondation te ba tey la gën a mën a te tey la gën a mën a ne mhm. Serigne Mboup aussi dama koy lancer appel parce que inondation yi li muy metti metti li kaw la presque mu ci gën a sévère li muy dund mënoo nekk maire maire dafa am obligation ci commune booy campagne nga dem ci sa commune nga waxtaan sa population commune nga waxtaan ak ñoom yoon la boo toogee nga indi leen saafara ci la mhm. mais kaw la noor sax bu taw arrêté dara amul seen gàmm yi boo ko demee da ngay gis ndox mi taa fa donc moom kooku bu wëlbatikoo tourné ne day laaj réew pour doxal te commune bi ñu la jox mënoo ko doxal vraiment doxul. Mhm. j'aimerais mu mu change doxalin bi muy doxale faire Touba jàppale waa Kaolack ci ndox moomu nga xam ne sonal na lépp. Mhm. ñu wutal ko yoon mu dem fii boo koy wutal yoon muy dem. Mhm. Momo, le chroniqueur des patriotes. <laughs> Oh, <laughs> Alors, Momo, mm. on a vu euh, la une de la tribune. Euh, Jomai, euh, le président Bassir Diomaye fait avec Ousmane Sonko concernant l'Igué Blenira. Moi, je a un petit titrage, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pas, parce que c'est dans le même gouvernement. Mm. C'est-à-dire, euh, journal tribune, mm-hmm. mm -hmm. c'est un titrage, mais c'est parce que suñ delluwaatee si ginnaaw tout tout ça, j'ai eu la chance de euh, ak des mais tout le temps quand on sort euh, journal Tribune que titre c'est comme si dafa am un je viser. Mm-hmm. je vais pas être là à parler de Bougane qui est soi-disant euh, l'opposant sur le plan politique au Sénégal. Mm-hmm. mais bon mm-hmm. c'est juste pour nous pour mettre quelque chose en relief. Uh-huh. le président Bassirou Diomaye.

ñom ñoom ñoo leen fi tax a toog tey jii Sénégal dem nañu ba benn moment am ay ministres yoo xamante ne soo leen yónnee SMS léegi nii il te répond mm-hmm. loolu c'est des actes yoo xamante ne dañ koy saluer mm-hmm. et day indi rapprochement entre les autorités étatiques ak cette population loolu nag daara ñu ko woon gis sur les périodes yi nga xamante ne naam euh, jàll na léegi nag je pense que Adja le samedi ñun ñëpp gis nañu journée de nettoiement bi nga xamante ne amoon na mm-hmm. Sénégalais yi génn balewat mbedd yi ah, euh def. effectivement bien vrai que amna ci ay yenn zone yo xamantene mhm. on n'a pas vu ñom ñu def yenn activités donc je pense que sur le plan de la communication état bi ñom am rôle bo xamantene war nañ ci gëna xel pour à ce que fépp fo mën ci mën ci nekk ci Sénégal dans les endroits ci yenn zone, yi ñoom ñu xam ne que tamit y a une activité boo xamante euh, ça concerne toute cette population là. Mm-hmm. man gëw ma ne que waa Pastef ñoom ñoo koy lancé wala non ça ça doit être un don de soi au fait ku nekk tey ji participer pas forcément les patriotes de Pastef mais les patriotes du Sénégal. du Sénégal quoi ñëpp xam nañ ne que ça mm-hmm. doit être un don de soi mu nekk tamit loo xamante ne da nga koy def pour ta patrie. pour mm-hmm. ta nation. léegi nag mu am ay yenn zone yoo xamante ne dañuy gis ne que chaque période hivernale dañuy am ay problème d'évacuation mm-hmm. inondation et de bëri mm-hmm. léegi nag dañuy wax ne que l'État c'est la continuité mm-hmm. mais ce gisee tey jii les mesures ak actes yi nga xamante ne suñu autorités ñu koy c'est pour éviter encore une fois à ce que sénégalais traversent les traverser li nga xamante ne jotoon nañ ko dund donc je pense que nekk na loo xamante ça doit être dans la continuité les égouts sénégalais xamné tamit amna lo xamantene waruñu ko def parce que tay jii so ñëwé ci ben égout bi nga xamantene ne moom moo évacuer day fat do fa soté day fat so jëlé yenn euh, euh, déchets yi déchets nga sànni ko fa su taw bi ñëwé day am problème d'évacuation mhm. les poubelles ñu xam fan lañ koy teg man je me dis que dans chaque quartier saa yo démé sur ay non non les actes civisme moo tax ma il faut que nos autorités nous prennent li nga à maintenir mon la continuité xamne ne que dañ nek ci période bo xamantene c'est délicat dafa am régime bo xamante non mais sans que xool je j'étais bien dit que l'état c'est la continuité munoo ñëw rek c'est impossible parce qu'il y a des secteurs yo xamantene ne munoo ñëwaat recommencer wat à zéro day indi retard mm-hmm. et ku xol ni askan wi di doxé les sénégalais sont en train de voir l'évolution de la vie politique mm-hmm. Mm-hmm. et ñom xam exactement les enjeux xam nañu exactement sénégalais yi fan lañ leen di et je pense que ku xol mbirum baisse des prix coow bi nga xamantene ne na fi ak réaction yi nga xamantene sénégalais am nañ ko moo lay wan nos autorités doivent prendre en compte xam les mesures yi nga xamantene war nañ ko tek en place pour accompagner cette population bi nga xamantene ne benn temps bi duñ leen ko may. Mhm. légui nak peut-être mom mo indi tay ji ni euh, ces débats d'idées les débats d'idéologie yi nga xamantene actuellement ñing koy traverser mais ma ngi rafetlu encore une fois acte yi nga xamantene nos ministres ñu koy poser et aussi euh, les citoyens war nañu prendre en compte mesures pour accompagner ce nouveau gouvernement à être dans les pas de la bonne gouvernance alors non parce que il faut aussi que j'aimerais ce nouveau régime Nous mhm. devons des jeunes porter volontaire parce que tu as mis alors que sensibilisation bi. accompagner accompagner wu ko rek mën na échec ci ñenn ñi. Mhm. parce que am na ñoo xam ne ba tey bu ñuy dox ci mbedd buñ naanee kaas café sax dañuy sànni am na na ñoo xam ne organiser wu nañ ba dañuy xool poubelle ñu def ko ci. Mhm. mais da ngay gis de euh, à Dakar mbedd yu bari da ngay dox lu yàgg mais doo gis foo def sachet bi nga bi nga ji donc état am na part de responsabilité ci loolu. Mhm. mu xool poubelle yi ñu ñuy jegeente. ñu sensibiliser nit ñi ba ci benn. aujourd'hui di nga dem ba ci couvert bi nga. civilisé mais non balaa ñoo jàll si li nga xamante